Bunda. Is it sama yàgg yaa ngi ci. Amadé. <laughs> Serekunda market kon yéen dégg ah bu ngeen déggee lool nag ay anglais ngeen di dégg kon nuyu nañ internet yi nekk ci àddina bi du suivre Leewtoo TV tey nag ñu ngi biir Serekunda ak Leewtoo TV Babacar la ngeen xam ko si micro bi ànd ak yàgg maar si caméra bi waaye musa Fall si montage yi Père Alou Alassane mooy dawal sunu per di nuyu internet yëpp ah mais di nuyu suñu DC Pape Thialis Faye. mook tonton Diaw ah Abdourahmane parce que lii bu yombee ñoom ñoo ñu ko yombal olof na lëg lëg su lekkee alom yàgg maar na ko gërëme coy mais kenn du ki nga xam ne nii mooy ñaaw baxaw ak buur buur mention spéciale ci jàppale bi am na solo mais jamay kenn nuyu nañ ko ndax moo ñu indi fii tey White House nag duñ leen fàtte Xadijatu Sow moom moom moo ñu dalal di bëggee ñëpp di ziar ñëpp di ñaan ñëpp jàmm dafa am loo xam ne nag dañ koy werante di ko coow Sénégal Modou Lo kan war a bëreel c'est le roi des ñuy laaj ku war a moo tax ñu ñëw fii biir Banjul fii wala boog Serekunda ci marché bi bëgg a laaj gaa yi Modou Lo kuñ koy jox c'est le roi des kan lañ koy jox yàgg xaaral ma laajte ni rek ah mu ngi daw moom copain maa ngi lay bëggee ah, mbaa am nga jàmm. jàmm rek alhamdulilah tur bi naa ngi tudd Alxasan. xam nga Modou Lo. Modou koy dégg bu baax. parce que gis wala. non mosuma koo gis na wax dëgg yàlla. actuellement mooy roi ci Sénégal. fi mu nekk nii yow boo ko doon jox tey si làmb jox Modou bu ma ko doon jox si lamb ji tey non jox leen ma ko Balla Gaye rek encore ah? waaw parce que Balla daan na ko daan yu métti te mu nekk na roi euh, dañ ko war a delloo Balla Gaye parce que Balla bu mu nekkee roi am na ko waxoon moom du roi am mooy Eumeu ñu jox ko Eumeu Sène ko waaw ko joxaat Balla Gaye ñu xool ba xam mu hein yow ba Modou Lo koy jox man Modou Lo ma koy jox ba Mbër waaw ah. xam naa gars yi ñu moo leen man waaw. fii nag boutique la boutique bu jaay ay tisi kilifa gi maa ngi lay ziar sama sëriñ. bëgg naa leen de ba am ngeen jàmm yéen ay Gambien ngeen wala ay sénégalais wala. ay Sénégambia waa Sénégambie sax moo ama waa looloo leer tur la. Fafa Mbuub. Papa Mbuub. Papa Mbuuba Jëli. Papa Mbuuba Jëli waaw. foo dëkk ci Sénégal bi. man maay dëkk fii côté Farafeñe quoi poste bi foofu waaw poste foofu. mais Modou Lo tey c'est le roi des arènes ñu ñëw fii biir Gambie nag di laaj tey roi des arènes bi kan la war a bëril ñi dañ ne Ama ñi waaw ñu de suñu sañar waaye ñi ñi jox ko Ama Baldé. Ama Baldé waaw mu bëreef moom. moom ah. Ama Baldé moom sama mbër la moom. sama mbër moom 100 pour 100 Pikine la waaw. yow Modou boo ko doon jox tey koo koy jox. Ama Baldé rek. waaw hmm. ah, waaw. lu tax Ama non na jël Ama Baldé ndig Balla ne du bëree moom. mu ne du bëree Balla. te du bëree Amat Seen. nañ ko jox ah, Ama Baldé rek. Ama Baldé laa gis man. am na solo ah, waaw mbokk bëgg naa la. waaw jaajëf. naka dëkk bi fii nag a taxi bi. ah taxi bi mu ngi dox ndànk-ndànk. Modou Lo c'est le roi des arènes au Sénégal. ñu ngi naan digganteem ak Ama ñu ne Balla yow koo koy jox. Balla Gaye. Balla Gaye ah. si yow. soxlaat bi. roi bi leen soxlaat. soxna si yow koy jox Modou Lo yow. Balla rek laa koy jox waaw waaw ma si dara Balla Gaye rek. rek kese. bu duggaatee si ñun rek ñu jël ruwaay. am na solo. maar taxi yaa ngoog de biir Serekunda maar topp ma ñu dox mais yàlla ji nag day taw de jaaykati dàll yaa ngi nag jaaykati jiin yi kilifa gi bëgg naa la. maa ngi lay bëgg sang bi. moo Lo ñu ne nañ Balla Gaye ñu ne Ama Baldé ñu ne Tapha Tine ku ngeen wax. Modou Lo na jël Tapha mooy combat jànk ci moom na jël Tapha Tine. yow loolu nga moo war a am sax ci wëllu làmb looloo war a am. Uh-huh. boo toppee seenu làmb yëpp loolu moo war a a am ci yoon na yaakaar mën na yomb ci Tapha Tine. yaakaar est-ce que dina yomb bu ko Tapha dina yomb bu ko Tapha Tine mais ñoom ñaar ay mbër lañ ku ne na préparé rek ñu jàkkaarloo ku ne def la nga mën te Tapha Tine du cuune Modou Lo du cuune ay mbër lañu. ay mbër lañu ay si cuune ñoom ñaar te bay favoriser bu favoriser Modou Lo bu de 100 pour cent. Ah, ci kaw bu ci kaw bu ci pour cent. parce que nu euh, mu tudd euh, Tapha Tine mbër la gis nañ fi mu jaar gis nañ li mu def yaa ma dégg xëy na ndog day am nag mais bu ñëwee bu taxawaatee ak ay mbokkam préparé wu bu jàkkaarloo moom ah am naa yaakaar du doy de am naa yaakaar du doy nag que le meilleur gagne bu boobaa. <laughs> copain. cop <laughs> kii amateuru lamb la waaw ba tey rek ah maa ngi lay bëggee góor maa ngi sant bu wér Modou mooy roi des arènes gars yi ne jox ñi neen Tapha Tine ñi ne euh, Ama Baldé ñi ne Balla Gaye yéen ko leen wax yéen waa Serekunda Gambia moom ñu wax surtout man mi nga xam ne ni Tapha Tine sama doomu baay la ma dëkk Bawol si nekk Bawol Bawol waaw original Bawol Bawol sax original am ñu jox ñu Modou Lo ndax ruwaale saa mu dem Bawol ci kattan suñu borom loolu lañ bëgg yàlla na ko yàlla dogal ci barke. foo dëkk si Bawol. man Mbacke Bawol laa dëkk waaw. jërëjëf waay. dañuy laajte de parce que Modou Lo nag roi des arènes la. gaa yi naan nag ku mu war a jël ñii ne euh, Ama ñii ne tafaatin coow li bëri ñi naan booy ñaa ku nekk ki ngay wax yéen defe naa da ngeen di seetaan làmba kilifa gi maa ngi lay bëgg. dañ koy seetaan kilifa gi nuyu naa la yéen ñëpp. tur bi nan Adama Ngom la dëkk euh, Sénégal Diourbel. yow sama doomu nijaay nga Ngome nii moom ñooy samay doomu nijaay. Ah, moom. yow Modou Lo boo ko doon jox tey koo koy jox. waaw ah, Modou Lo de moom su ko doon jox tey jii man euh, Tapha Tine laa koy jox. Tapha Tine waaw. mbaa du bawal bawal gee tax. non du question bawal bawal sax moo nekk potentiel adversaire am. Ah. nekk potentiel adversaire am ci yoonu làmba. yoonu làmb li ma gis ci yoonu làmb fi mu nekk nii actuellement fi mu nekk nii. Tapha Tine laa gis. parce que ay ay boña yi ñuy wax nii yooyu il faut ñu gën a daal néew ma ne prouvé wuñ de waaye foo ñu gën a prouvé waat pour ñu gën a war a am fuñ jaar feneen ba ba mën a egg ci Modou Lo. Adama Ngom raayit moom fi mu nekk nii raayit naa moom Tapha Tine moo nekk potentiel adversaire am. Adama Ngom sama nijaay waa xam am na sama nijaay Adama Ngom la tudd maa ngi lay bëgg kilifa wax ci rek sànni ci sa xalaat. waaw comme lu kii wax rek waaw Tapha Tine moom macha allah mi ngi si yoon bi de waaw war na Modou la war a jël takk si waaw waaw war na ko jël de waaw am na solo <laughs> kilifa gi yow Mourou koo koy jox. Modou Lo na jël na joxaat Balla revanche rek. Balla daan na ko ñaari yoon di yow itam. daan na ko ñaari yoon mais mu delluwaat ci Balla rek mu fayeeku parce que bala bëgg a jël roi bi. waaw loolu la ñu dañ ko bëgg a jëlaat dañu bëgg a jëlaat roi bi mu dina nangu loolu. Ah, xanaa mu bañ a ak Balla su bañ a ak bala moom dañu jël roi bi waaw. su ma nekkoon conseiller Modou Lo du ma jëlaat bala Gaye xalaatuma ko sax. non moom moom moom loo siy sam la rek. moom moo moom moo ñàkk rek ba léegi Modou moo ñàkk jël na roi bi de mais Balla fu mu nekkoon ba foofu la nekk moom na door a fayeeku Balla lu ko def moom bu mu moom bu mu xool moom bu mu xool bu dee am. bu bu dee am Balla moo ñàkk de parce que Balla moo soxlawaat roi bi. Modou Lo moo nekk roi des arènes fi mu nekk nii waaye mu nekk moo nekk roi des arènes mais na delluwaat si Balla mu def Balla dara man loolu laa bëgg mu wone foofu doolam bi parce que moom dafa am doole dafa mun dafa xarañ mu delluwaat si Balla mu wane foofu gàllaadam bi waaw loolu laa bëgg waaw. mais Modou Lo xam nga ko. bu baax a baax a baax. gars yi dañ ne mooy roi des ku ko war a jox ñi ne Ama Baldé ñi ne Tapha Tine ñi tudd ñeneen ak Boy Niang. Modou Lo moom champion la bu ñëpp xam ne champion la waaw. yow bokk koo koy eh, roi des arènes fii wala fële. roi des arènes kan nga koy jox mu bëreeg moom actuellement. fi mu toll nii Ama Baldé laa ko bëgg a jox. Ama Baldé. waaw baax na. Gambien ngeen ay wala def. ñu si jaawa. yéen si jaama. xam ngeen Modou Lo. Ah. koo koy jox mu bëree moom Ama Baldé wala wala Boy Niang. Modou Lo nam toogagum relax ba pare jóg a ah. nag gars yi dégg ngeen Gambien yi li ñu wax ah. xalaat yi daa maanaam bokkuñu ñi dañ ne Ama Baldé mook Modou ñii ne Modou mook Tapha ñii ne moog gay Gaye kon nag yéen internet yi yéen a siisé l'essentiel que daal ñoom joxe nañ seen xalaat dañ leen di jox nag dig daje léegi si kanam parce que nag jàkkaarloo bàyyi ma joon ak xoyantaan ñoom ñaari mbër yi dañoo war a bëre fii pour le 3 novembre yaa ngi dégg loolu moo ñu fi indi tey kon noonu la fay demee mbër mbër kaay kii daa ni mbër la fii de maa ngi lay bëgg ci loo ne sant bu baax noo tudd yow man soldaar mbër la fii waaw ba ne écurie sàkku xam-xam Banjul. sàkku xam-xam Banjul. waaw dóor. waaw damay bëre dóor it ñaata bëre dóor nga bëreegu. non fi amaguma fi période amaguma amaguma fi combat nag. foo bëre Sénégal. waaw ak kan koo fa daan. kaw daan naa fa kii nii hmm, maa ngi fàttali turam bi sax gars yi. xanaa nga. séeréer la waaw. ban ban dëkk nga dëkk Sénégal. Diourbel. Diourbel fan ci Diourbel. Ah? Laañaar. Laañaar nga dëkk. <laughs> ban tur ngay bëree. Soldar. soldat ngay boo nee Dakar ban écurie ngay ne. non xamaguma kon yow mbër nga. Modou koo koy jox ci Sénégal. Modou Lo ah. waaw a ngi noonu ndeysaan mbër la ca Diourbel kon maar noonu la fa demee woon nuyu nañ ñëpp. ziar ñëpp balu ñëpp ak mais di féliciter nag waa groupe baax tey dañoo gagné seen amateur yi ca dakaar ñu ngi doon football Dakar Sacré Cœur di féliciter président Massamba di encourage ñoom góorandoo ak les jeunes amateurs yëpp ah ñoom Maam Jaara bu ngeel jon Awa Diop Touba nuyu naa ko Khadiros Ndiaye du ma ko fàtte depuis Allemagne ñoom tuuti yaay Sarr internet yëpp xam nga yàgg maar la cey yàgg maareen kenn du moom waaye montage ba Fall Moussa kon gars yi ba ci kanam